ñu ngi leen di nuyu fii ñi nga xam ne dara du leen ëmb si biir limametti point com wala si biir limametti show am nañu mbégte àndaat ak yéen tey nag ñu fa yéenee ñëw ak yéen si menn njàngat boo xam ne fees na lool si internet bi. muy sëy Ahmed Khalifa Niass ak soxna Oumou nga xamante ne temps yi yëpp coow laa ngi fi ne xur ñi naa am na ñi naa amul waaye ba ñu màggalee xam nañ ne sëy bi dëgg la am na ndax li ma metti génnoon na si ba def si ay gëstu ne leen sëy bi am na ñu gis Ahmed xalifa Niass fële sa Touba ñu seen ko fa mook soxnaam si ñu ànd lool tabarkàlla macha allah dem Touba ñëw ñu gisati soxna si ñëwam si këram googu di pale bi nekk si fas accueillir Khalifa Sall ba nga xamante ne mu ngi fa woon mu nekk loo xamante ne léegi amatul lam-laamee si sëy boobu ndax am na wala amul mu mel ni sëy bi am na waaye li si bees mooy soxna umu moom mu nga xamante ne mooy caatu maam da baax am na kilifa gu mag kum fi du sëyaloon li ma metti gëstu na leen ko topp ko ba xam ko muy koo xamante ne jarbaat la woon si njiitu réew mi fi nekkoon te jóge fi nekkoon na tamit nit koo xam ne ku am solo la ku am importance si biir réew muy Doudou te ñëpp xam ko nekkoon euh, assemblée nationale soxna soosu nag nekkoon na soxnaam muy soxna umu xayri moomu bi mu tàggook moom toog ab diir si la ko Ahmed Khalifa Niass takk donc mu mel ni li ma méttee saa su nekk lu fi xew rek dañ leen di gëstul si kooku le loolu mooy li si bees muy ex Doudou Wade mooy soxna Ahmed Khalifa Niass kon saan wa demoon moo delsi ndax ex Ahmed xalifa ñas moo nekkoon ex Serigne Mboup <laughs> li ma métti loolu la leen indiloon lool kon jaajëfal nañ leen semaine bi ñëw si beneen jàngat bu ñuy jàngataa teg si lépp ay xew-xew yu fi am ndax buzz yi xam ngeen da leen di soxal te li ma métti moo koy jox fi muy tàngee fi muy neexe si biir li ma métti show jëri ngeen jëf